ci accueil bi ci toppatoo bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel danaa ñëw ci tur xam naa ci vidéo bi mujj def boo xam ne ngërëm leen rek leen incha allah tey dana ñëw ci gént ñi nga xam ni dafa dellu ci gént safara léegi kon ma oustaz dama gént gis suñ kër di tàkk dama gént gis sama néeg di tàkk dama gént gis ci mbedd mi fooy tàkk dama gént sama yére di tàkk damaa gént sama yaram am fuy lakk et cetera loolu mooy laaj li ngay njëkk a jàpp safara ci gént yii lay firi bu njëkk bi dana nekk axlaam ruya tahdiriya ruya tahdiriya mooy ngay dugg ci dara mbaa nga nekk ci dara gént ñëw boo xam dafa lay sonn ci nga gént ca la nga ne par exemple nga nekk ci yoon di jaaxaan di fo di moy yàlla gént feeñu la ne la gaawal dem tuubi balaa muy trop danga nekk ci dugg ci ngoro goo xam ne gàcce moo ci jëlee bu ci say amee jafe-jafe cee am alam euh, euh, ruya tahziriya day ñëw wax la ne la ngoro gi gënul bu ci dugg say loolu mooy ah, ruya tahziriya maanaam kon gént safara dana ñëw léeg-léeg nekk loolu léeg-léeg dana ñëw firi sëy ci ku safara léeg-léeg dana firi sécurité maanaam mucc ci lor safara léeg-léeg firi mucc ci musiba safara léeg-léeg firi feebar wal iyaazu billah safara dana firi yaakaaru mbir mbir ma dana sotti loolu yépp dana ko firi ñëw ci tafsir bu njëkk bi kon boo ma déggee léeg-léeg am na fu gént safara baax am fu mu li ma njëkkee dangaa ngaa gént gis safara suy tàkk safara su bari par exemple nga dëkk bale laa gis muy tàkk wala wala kër ñoom diw laa gis muy tàkk safara si bari waa néegi yàqu àll bi et cetera gis saxaar su bari ci gént loolu soo ko géntee baaxul ci gént safara fii ak mi ngi raglu fii ak mi ngi am saxaar fii ak yaa ngi tiit ci gént maanaam mu nekk safara su la yéem boo xam ne bokkul ak nit ñu miinee ci safara par exemple boyal fourneau kooku voilà wala nga gis benn dig digal buy tàkk bokkul ak gént safara su rëy tàkk baaxul loolu day firi fitna baaxul ci gént wala buur wala borom doole bu am kàttan koo xam ne mën na laa tooñ tooñ nga nga jëlee ci fitna mbaa lor la ala kulli xaal baaxul ci gént danga gént sa kër di tàkk ci góor boroom kër nga kër gi sa kër ne nekk nga gént kër gi di tàkk walla nga gént néeg bi di tàkk kon jigéen bokkul jigéen bu nekk ci néegu sëy bokkul góor boroom kër gu gént sa kër di tàkk walla sa néeg di tàkk baaxul lan lay firi day firi fitna ci kër gi coow ci kër gi wax yu sew maanaam ay wax yu sew yoo xam dana jur coow lu bari ba indi fitna ci kër gi baaxul ci boroom kër eh, nga ne ma man kat dama gént gi safara buy tàkk ci biir gént gi ma fay ko ci biir gént gi baax na ci gém sécurité la mucc ci danger la mucc ci lor la mucc ci coow la nga ne waaw dama gént sunu kër benn ruq ci kër gi mooy tàkk waxuma kër gi benn ruq benn dig di tàkk wala sama néeg sama armoire ci biir néeg ma gént gis mooy tàkk baaxul day firi coow dañoo wax ne coow la lu safara sa gën a néew coow la gën a néew waaye lu mu gën a bari coow la gën a bari baaxul ci gént danga gént sa yaram di tàkk baaxul day fi feebar walla nattu këru di gént danga gént yére yi ngay sol wala sa yére di tàkk baaxul day firi coow lu la topp wala wax ju ñaaw mbaa ñu yàq sa der baaxul di gént jigéen amoo jëkkër xale bu góor amoo soxna di gis safara suy tàkk danga di gis safara buy tàkk bokkul ak safara bu ma wax ci kaw boobu moom wax naa ne fitna la maanaam safara su bari waaye safara su yam rek comme kuy boyal wala kuy togg tàkk-tàkk boobu baax na jigéen day wala soxna ci yow maanaam borom kër wala soxna ci yow euh, même bi waxoon naa sànq sa kaw sa yaram di tàkk benn cër ci sa kaw yaram gi safara buy tàkk wax naa ci ñee feebar la waaye bu dee célibataire bu jigéen baax na jigéen ci day firi jëkkër moom tamit Euh, gént gi noonu ah, léeg-léeg day baax ci kii bon ci kee dana firi jëkkër ñenn borom xam-xam yi neen dana firi xéewal wala mu firi yaakaar dara dal so danga ci jot dana firi stabilité yooyu yëpp da nga gént tegale ay fan wala gént tàkk takk safara daal day tegaloo ci yow saa yu tëdd di faral di gént muy tàkk saa yu tëdd di faral di gént safara baaxul ci gént kooku mooy foofu la gént safara di firi alam euh, ruya tahziriya maanaam gént soññ la ci yow ci nga moytu ci fi nga toll ci sa diggante sa borom léegi li ëpp nag dangaa nekk di xuus ci moy xuus ci caaxaan jaamoo yàlla nekk ci foo mu nekk ak soññ ci yow ci nga daw tuub voilà maanaam safara buy répété ci sa gént wax naa sànq safara buy tàkk nga gént gis ko waaye safara bi dafa am tàkk tàkk bi dafa rafet maa ngi gis safara su rafet di tàkk def naa ñi waaw li may wax nit ñi daan ko xam safara bu rafet di tàkk nga gént gis ko ëppul deful dara baax na ci gént lan lay firi day firi yoonu màkk ci yow ci at moom googu génte voilà euh, waxoon naa la safara bu raglu safara su bari suy tàkk baaxul ci góor mën na la fitna lay firi waaye ci jigéen bu nekk ci say kazalika baaxul day firi problème yu tar problème yu métti ci sa néegu sëy surtout sa diggante sa borom kër bépp nit boo xam ne da nga gént di jaamu safara comme niñ ko miinee ca diine yu njëkk yi nga xam dañ daan taal safara di ko jàmm képp koo xam ne da nga ko gént jàppal ne baaxul ci gént day firi néewal ci jàmm yàlla rawatina sa julli respecté woo ko wala matul ñàkk julli wala sa julli maasewul koor gi soññ la ci yow ci nga góorgóorlu ci jéem a mottale say julli euh, yéen ñi ñuy faral di soxla ci ñaan istixaara xeet yooyu yëpp ñaan ci wàllu say gàllaaj gaa ngi fii ñaan ci wàllu am doom gàllaaj gaa ñaan ci wàllu kaaraange cat rab liggéey sangat yaa ngi fii ñi nga xam dañu soxla ubbeeku surtout bayre cangat yaa ngi fi mën ngeen jokkoo ñun ci numéro yi bëgg sama numéro defe naa léegi moom ñëpp am nañu da gént góor nga jigéen nga boog laa bëgg wax sa sa kër gi nga dëkk wala sa néeg bi nga dëkk di tàkk bu dee ci góor ci kaw dama laa waxoon baaxul jigéen bu dee jigéen baax na waaye ci sart bu bañ a nekk tàkk-tàkk bu am saxaar walla mu lu mbaa kër gi yëpp di tàkk gis nga benn tàkk-tàkk ci sa kër wala ci sa néeg jigéen bu nekk ci néegu say day fi tuxoo ci kër gi nga nekk dem ci beneen kër bu gën a baax fi nga jógee kër gu bees kër gu rafet wala wala baax da nga gént gis safara su rafet waxoon naa ko day firi yonent bi dem màkka euh, jigéen ji ëmb da gént dara ci sa yaram di tàkk une ci sa yaram di tàkk baaxul day firi wax joo xam ne rafetul gu ñuy wax ci yow te loolu gënul jigéen ji ëmb euh, nga baal ma kat dama juum dama laa waxoon ci kaw ne képp ko xam ne da ngaa gént sa yaram di tàkk baaxul day firi wax day firi coow coow mais bu dee jigéen ju ëmb laa ko wax kooku baax na ci moom day firi wërsëg lu mu firi xéewal ñeneen ñi baaxul ci ñun moom. ala kulli xaalin lépp ci sart mu war nekk tàkk-tàkk safara fu mu baree ba raglu baaxul safara fu mu amee saxaar baaxul safara fu muy tàkkee ci sa kaw yére baaxul. bu dee ci sa yaram ñenn ñi baax na comme jigéen bu sëyul wala jigéen ju ëmb bu dee sa yére ñëpp ñoo ci yem yem ñoo ci bokk yem baaxul sa kër fu muy lakkee ci jigéen buy sëy baax na jigéen bu mësta sëy ak ku mësta sëy ak góor surtout ci ñoom seen kër di tàkk baaxul góor ku mën a doon sa kër di tàkk jàppal ne coow la wax ju sew la jox ne mën na indi coow ci sa kër ala kulli xaalin ci tënk ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.